bismillahi rahmaani rahim aouzu <clears throat> billahi min asheytaan rajim la hawla wala quwata illa billah alil azim hasbuna allahu wa nima alwakilu nima almawla wa nima nashir asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen mbokk yi ni seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay mënti nekk rek ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaanal yal na ñu yeewu yendu ñun ñëpp ci jàmm te fanaane ko di ziar bu baax suñu kilifa yi diine yi e, di ñaanal bu baax it suñu kilifa yi aada yi di ko tàmbalee ci ki yàlla teg ci boppi réew mi mooy son excellence le président Macky Sall ba ci ki gën a suufe kenn ku ci nekk lépp lu ñu la jox pour defar Sénégal yal na ci yàlla jàpp ba lépp sotti bi jaahi seydil wujjoot sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi feebar yàlla nañu wér ak jàmm di ñaanal nag sunu bokki sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi tabaar fakal la fekk leen fa te teraanga tax leen a jóg yàlla na ngeen dajee ki xéewal te yàlla musal leen ngeen ñibbi si benn par benn ndax tukki dafa metti lool di dellu rekk di sant sunu boroom tabaaraka wa di ko ñaan <clears throat> sunu réew mi <clears throat> yàlla na nu ko sàmmal ba dara du ko yàq te jàmm ji fi am yàlla na nu ko yokkal ah, mbokk yi na xam ngeen ni tey wax ji daal moo di rek lii xew ci àdduna bi mu di mbas mi nga xam ni moo jóge Chine ñu koy wax coronavirus ak coow li nga xam ni moom la indeek lépp waaye nag ah li nga xamante ni sunu borom tabaraka wa taala wax na ko ci alquran moo di yàlla day wax toujours nii su ngeen melee nii dinaa wàcce ci yenn balaa te actuellement ci sunu réew mii wax ju bon ji bari na fi fen yi bari na fi yàq der gi bari na fi worante bi bari na fi naxante bi bari na fi te loolu lépp ah, jullit bu nuy comporté woo fokk yàlla di la indil ay ay mbas parce que yàlla bëggul kuy fen yàlla bëggul kuy wor yàlla bëggul kuy yàqal kenn yàlla bëggul kuy duurle yàlla bëggul kuy fenal kenn yàlla bëggul kuy yàq der te léegi Sénégal mooy champion ci loolu moo tax ah, dëgg-dëgg lii bu yëgsee warul bett kenn ndax ni nu mel dëgg-dëgg ku nu mel léeg-léeg yàlla woon la boppam fan yii bu ngeen gisee ni asamaan si meloon ak yii xew ci àdduna bi xanaa kenn ku nekk boog war a xalaat sunu borom tabaaraka wa taala ba bàyyi yenn yi waaye tànk jikko yii mi ngi ci nun bari ci nun di ferante di yàqalante di jëwante di duuralante ah loolu fu mu bari wax dëgg yàlla musiba ak balaa wàcc fa yal na yàlla musal ñépp nag waaye nan xool sunu digganteeg sunu borom bu nu xoolee sunu digganteeg sunu borom kenn ku nekk nga auditer sa bopp di nga xam ndax li nga def am nga responsabilité ci feebar bi walla déet parce que nag Sénégal léegi dëgg-dëgg metti na daal maanaam léegi fu daawul yàqu sax yàqu gaa ngi fay dugg waaw da ngay dégg ci famille yu mag yi sax ñuy defante yoo xam ni kenn mosu koo gis ci ci état bi sax da ngay dégg léeg-léeg ñuy defante yoo xam ni kenn mosu koo gis te lii lépp àdduna la àdduna la te àdduna mii ku koy dàq nag tardé nga ndax moom kenn du ko dab kenn du ko dab doomi aadama su bëggee yàlla di leen musal ci yenn yi dañuy am loo xam dañ ko fay bàyyi dañ fay bàyyi fen bàyyi fa wor bàyyi fa jëw bàyyi fa duuralante bàyyi fa yu bon yooyu waxante yu bon yi kenn ku nekk yaa ngi wër loo xamal sa moroom ci lu bon ba weeje ko ba weer ko xam ngeen ni loolu fu mu am mosiba dugg fa nanu dellu ci yàlla te lii nu yàllay woon dëgg-dëgg war ngeen a xam ni ah <laughs> yàlla fàtte wunu de te nag feebar bi sax nii ko nit ñi cooweeg ni ñu koy waxe <laughs> ma borom xam-xam yépp nee nañ si buroo ko gën a garaaw sibbiru bii paludisme moo gën a garaaw coronavirus parce que sibbiru li muy rey par par par at kenn xamul nu mu toll waaye fen yii ci dëkk bi ak warante beeg waxante yu bon yi réew mu mu bari il faut musiba ak balaa di fa am yàlla nañ ci yàlla musal nag ndax ñax gu wow mooy lakk gu tooy ñëpp melul noonu Sénégal moom quatre-vingt-cinq pour cent yi minimum ay ay gor lañu du ñu wax lu bon du ñu ko def waaye quinze pour cent yi nekk ci suñu biir. bëgg rek xëy yor seeni làmmeñ lu bon lu ne ñu tabal ko nit ñi lekk gone yi sax defe nañ ni wax ju ñaaw doonatul problème parce que da ngay gis ku ku ñu naa kilifa la di di ni waxee ku ñu naa kilifa di waxe ku ñu naa sëriñ la di ni loolu kay bu amee cim réew gone ya nga xam ni eh, mataguñu muusaguñu mais dañ naan wax lu bon garaawatul parce que kilifa yaa ngi koy def te ñooñu dañ leen a tuddee kilifa waaye matuñu kilifa kilifa moom saa yuy def yëfi surga dootu kilifa kilifa comportement la ay réew moo xam ni koo gën a yaakaar ni moo war a gën a def lu lu lu lu rafet lu lu sell moo gën a mën a def lu bon lu ñaaw moo gën a mën a wax lu ñaaw moo gën a mën a dóorle moo gën a mën a fen loolu fu mu bari wax dëgg yàlla bu ko musiba duggee wër ta bett kenn suñ digganteeg suñ borom lañ war a xool parce que yàlla nag maa nga tafal ma numéro yi waay bu ko defee suñ bokk yi nga xam ni ñoo nuy seetaan euh, ñu mën a dugg kenn ku nekk wax ci xalaatam te ñu bañ a tiit nag te ragal yàlla rek parce que lépp nag euh, médicament bi jiitu daal ci jullit mooy ragal yàlla garab gi lay njëkk a faj mooy nga jox sa bopp sa bopp sa tabaraka wa taala boo joxee sa bopp yàlla rek lu baree baree baree bari du loo dal parce que yàlla moom ku ko jox sa bopp mu yoroon la ko ndax ku mat sëkk la waaw maane boo ma mënee tafal numéro yi téléphone yi bu ko defee ñu bo bokk bokk ak waxtaan wi sunu bokk yi waa réew mi yépp kenn ku ci am xalaat walla xam-xam parce que biig ci guddi gi wax dëgg yàlla jéem na noo wut lu bari fu ne làmb nan fa pour am ku nu mën a toogal ci plateau bi ab spécialiste mu mën noo expliquer feebar bi ba nga xamante ni kenn du ci tiit ndax man am naa rakk yu nekk Italie bay Mbuub Taal bi nekk Brescia mi ngi may woonaan ma yéen affaire bi information yi ngeen di dégg Sénégal wax dëgg yàlla xaw naa wuuteeg yenn fële nee na ma sax même dans les marchés maquettes yi boo ci demee wax dëgg yàlla doo fekk sax kenn takk masque parce que nag feebar bi moom li mu laaj mooy nga set rek waaw ñun fii nag Sénégal nañ jéem a setal sunu xol bala ñuy setal yaram yi xol yi lañ nañ ko defar xol yi ñoo mel noo xam ni fi mu ne nii set très grave parce que am réew bu nu demee ba kenn yéeneetul kenn lu baax kenn bëggatul a gis sax ku baax ku fi baax ñun la doo fi baaxee gars yi daal fi ne ñu baree bare et puis léeg-léeg ngay dégg aussi yenn wax yi ci yenn rajo yi wala yenn télé yi ay magi jëm yoo xam ni ay sénégalais ni ci réew mi la ñu dëkk te bu ñuy wax mel ni golo mooy wax parce que réew mi dafa mel dañ leen a may léegi lu leen neex nañu ko wax parce que yor nga mikoro waaye waaye loolu it nañ ko seetaat nañu seetaat ñu ñàkk kersa ñuy ñàkk teggi nekk ci rajo yi di wax parce que ñooñu seen place du foofu am na koo xam ni ku ko dégg sa yaram day daw ndax wax ju bon ju tegginuwul ju yaree di ko ji ñuy wax ci ci ci ci rajo yi ak tele yi fan lañ ko teg. parce que yaa ngi tiim micro rek tu tu tu tu penses que yow tout est permis quoi lu la neex mën nga ko wax te yow doo dara sénégalais yi ñu baree bari ñoo la gën fuuf ñi ngay xas ñoo la gën ñoom ñëpp ñoo la gën parce que réew mi ñun ña xamante nañ ñun ñëpp a xamante ku fi ne ci lu baax xam nañ ku ci ne ci leneen xam nañ ku ci nekk ci diil xam nañu parce que euh, tappale yi nag ni mu mel ci réew mi léegi daanaka ñi parce que nag am réew bu fekkente ni ku tappale yor dara ñëpp jàngi tappale ak i diil ak i santaas ak yu kenn xamut y a tout dans dans ce pays moo tax fokk lii di fi dugg fokk lu ñëw dina fi dugg parce que ni nu mel la ni nu mel la danoo danoo dem ba léegi xamadi gi xamadi geeg yaree di ko gi ni mu mel ci réew mi ak wax yenn yi nga xam ne nit ay yorub rajo di ko ci wax wala télé yooyu wax dëgg yàlla rafetul jëkkut nañu nañu assainir sa millier laa waay parce que léegi golo gu jóg ñu jox la micro golo gu jóg rek ñu jox la micro loolu la neex wax ci réew mi wax ñu tegginiwul joo xam ne boo jàkkaarloo woon ak sa baay doog ko wax ah. mais on laisse faire quoi fii lu la neex ngay def nit ñi di seetaan te euh, yaree di ko yaree di ko jarul wone parce que réew ak ñàkk kersa lu la xañul du la ko may réew ak ñàkk kersa lu mu la xañul du la ko may waaw waaye yara ki teggin yara ki teggin lu la mayul du la ko xañ waaw lu la mayul du la ko waaye réew ñàkk kersa lu mu la xañul du la lay xañ rek waaye du la may dara réew a degi nag moo ëpp ci réew mi léegi te réewe na gi dem na ba fañ daan defaree nit ñi sax ñu réewoo fa nekk léegi parce que au ca début ba presse muy rajo bi muy télévision bi dañ ko créé woon mag ñu njëkk ñi sax journaliste yu baax yooyu nee woon ci rajo yi ak animateur yu yaru yooyu daan éduquer nit ñi ci xel ci wax ju baax ci waxi gor ñooñu dañ daan wax naan la rajo c'est informer et éduquer mais maintenant c'est c'est léegi moom jaxa rambaaj lañu ay rambaaj lañu ay seytaane ñoo ci ëpp di wax lu leen neex ci réew mi mel ni ñoo moom réew mi mel ni maanaam kenn mënul ci ñoom dara fan lañ ko teg bala ngay yedd da ngay yedd sa bopp ba noppi boo boo normalee ba noppi nga soog a wuti ko koy jàngal àdduna waaye yow dangaa ngaa yaree di ko xamadi ba pare nekk ci rajo yi quoi nekk ci télé yi lu neex waay wax réew mi léegi dafa mel ni amatunu amatunu kenn ku nu wekk kenn xam nga ne réew mu mel noonu fokk jàngoro di fa dugg ah àdduna li ci gën a garaaw moo diw làmmeñ te nag Sénégal léegi moom ñooy champion wax ju bon tax te wax dëgg yàlla ñun bonunu 85 pour cent des sénégalais nit ñu yiw lañu ruus nañoo wax sax kàddu goo xam ni ku ko dégg nindo parce que dañ leen a yar dañoo juddu it juddu yu rafet parce que nag am na yoo xamante ni defe naa ca juddu ya la que am na loolu ku ko ñemee wax ci réew sab juddu setut rafetut baaxut man maa la ko wax. parce que nag loo euh, wolof yi li ñuy lépp mooy dëgg de nee nañ lu lu lu feeñ lu lu ëpp lu manqué ci juddu feeñ ci jikko maa jikko yi nga fiy gis yëpp juddu ya juddu yu bon yaa ko lal waaye am na juddu bopp boo ni juddoo am way jur yooyu nga am leen ak ñu yar la yenn yar yi am na loolu ñeme woo nekk ci réew di ko ca wax parce que am na foo yem parce que yar nañu la tàggat nañu la tarbiye nañ la xam nga ni réew mii yar ak teggin képp moo fiy jox nit personalité ñi sénégalais yi ñu nu gën a respecté mooy ñi fi gën a yaru di wax lu baax nekk ci dëgg waaye ñu yaree di ku ñuy di wax di leen neex am na sénégalais yi sax duñ leen déglu Ah, du da ngay gis ku jël taxi fekk tel rajo nga jàpp ko mun la boo mënta sensé rajo bi du ma yéeg ndax wax ju bon ju muy dégg ñu di ko fa wax sa chaque jour chaque jour mel ni ñoo moom réew mi man xaw ma ku leen jox pouvoir CNRA yow seen liggéey xanaa nag wax dëgg yàlla war ngeen di déglu yenn wax yi ci rajo yi ak télé yi lu neex waaye wax fi daal ku mu neex saaga nit nu la neexee ah ah man ne bu fekkente ni loolu day continuer vaut mieux ñu ñu ñu ñu seet leneen ah président Babacar Diagne war nga jóg nag assainir sunu sunu milieu bi te code de la presse bi ngeen doon wax ngeen lijjanti ko ñu xam kii yee kii mais vraiment li mel ni géttu xargoo jiital rek lu ñëw nga dugal ci biir lu ñëw nga dugal ci biir waaw ah, mais c'est c'est na ñu seet ni ñuy ni ñuy defee waay kenn ku ne ne ci li nga war a nekk waaw mën nga informer mën nga wax ci rajo mën nga wax ci télévision man nga wax loo xamante ni xalif généraux yi ci réew mi yépp mën nañoo toog di la seetaan te doo ci heurté kenn waaye am na ñoo xam ne wóor na leen kilifa mun laa déglu parce que kilifa du déglu ku yaree di ko ku xamadi ku ñàkk kersa tey magum jëm di wax lu la neex cim réew ah lakkal nit ñi ah nga xam ni as gor sax mënatulaa déglu parce que gor yi du ñu déglu sagaru nit yooyu ah du ñu leen déglu nit ñi am nañ fulla fayda joo xam ne am na télévision yoo xam ne fii ci Sénégal ak i rajo mais sénégalais yi déglootuñu leen de déglootuñu leen parce que la nga fay dégg amalu la njariñ au contraire da lay tardeel sax nga dégg lu la aw naqar yi aw naqar képp ginnaaw boo te booy déglu émission aw naqar nga cay am loo ciy déglu la ma soxna sa waxoon si nekk France ni ma Sénégal ñun léegi bu ñuy déglu seen rajo yi yenn journalistes yi yenn animateurs yi dañuy defee ne Sénégal bu subaa mu tàkk wala bu ngoonee mu tàkk Sénégal li fi li am ci réew yi yëpp moo am Sénégal te Sénégal tanee leen lu bari nag ndax mag ñu baax la alaaji Malick doon wax naan makkaanu gën mag ñu njëkk waaye ñu leen gën mag ñu mujj mag ñu mujj ñu nag liñ nu fi bàyyi loon waaye buñ ko yàq mujj puso mu réer yàlla nañ ci yàlla musal ñun mag ñu baax lañu amoon ñoo xam ne kenn ku ci nekk buñ la nettali histoire am dara ci yaree di ku newu ca dara ci xamadi amu ca lu baax rek a ca nekk ay nit jóg tey jii ah parce que yàlla def na ñu ngi yore micro ñu dem be xam nga rajo day dofloo nit ak i télé ñu baree baree fi danoo kannasu la man ndaw si doon wax barki démb naan ma yow daal su fu ñu la woo téléphone rek nga jël mais yeneen gars yi ne ci télé pour nga jot ci nit problème la ma ne ko non man damaa bokkut ak ñoom formation man dama daa ngem bu def presque taati neen di dem ca tool ya di bay di ma wommati fas ba may gone gu tuuti ñu yar ma tarbiya ma su ma masaana def lu ma wër ta def ñu duma ma parce que ki ma doon duma duma yam ma doon duma wax dëgg yàlla daf jéggal naa ko lépp parce que daf ma defaru rek la ci jublu woon ma defaru kepp moo tax mënu maa nuroog ñoom ab télévision àdduna amul lenn luy ñëw ci man ba man maa may rëy déedéet parce que man dongob daara laa lañ ma njëkk a jàngal moo di woyof allazina yurauna wa yamnauna al maaoon sun borom tabaraka wa taala ko wax nee na ñi diis amuñu ci man dara waaye am na ñoo xëy télévision yi da leen a dofloo yenu nañ seen i dal defe nañ ne léegi super homme lañu wala surhomme ay nit yi kese ngeen te du ngeen dara nag ndax télévision bi mooy star bi man nii de wax dëgg yàlla wóor na ma ni un mois képp bu ma ko toogoon génnuma 2S fàtte ma c' est la télévision qui est la vraie star mais bu leen télévision bi dof loo ba ngeen defee ne da ngeen a ëpp nit ñi léegi déedéet lu la yàlla gën a yëkkati boo dee nit da ngay gën a woyofal sa bopp ku la gën a woyof moo la gën waaye nag ku ñu yaru noo woyofe <laughs> dañ koy jàng dañ la koy mooñaale parce que yalwaan mi nun sëriñ bi doon def loo lu mu ci jublu woon pour nu wàcce suñu bopp xam ni nit kese la nu xam xam aussi torox tànge parce que jamono jooju may yorub këll di yalwaani booba sama baay këram ceeb bu neex lañ fay togg ndax yoroon na xaalis waaye du ma ca mos loolu xam nga ni lu lu neex la ñu ma tere woon mais lu neex loole tey fàtte naa ceeb yooya <laughs> waaw parce que yar nañu ma au moins bu ma mënta yor kenn nit yor sama bopp te loo xiif xiif saa yoo reggee fàtte ni mas ngaa xiif waaye ñii nga xamante ni dañuy ne ci télé yi tele yi far leen dofloo ñu defee ni ñoo moom réew mi ñenn ñi rajo yi dofloo leen ñu defee ni ñoo moom réew mi parce que boo génnee ñu xàmmee la yow loolu dangaa war a tiit sax ci ñu lay xàmmee foo dem ñu xàmmee la laay man bu ma demee ci yenn réew yi ay ay policier sax bu ñu ma arrêté e taal ngool damay tiit damay tiit wallaay bu bu fekkoonte ni am na ci télévision yi foo foo xam da ngay wax ñu ñuulal la <laughs> kenn du la gis ngay waxtaan kon loolu parce que man vraiment bu ma sañoon bu ma sañoon dëgg-dëgg télévision daal ñemewu ko ñemewu ma rajo ndax wax joo xëy ñépp a koy dégg soo juumee ba wax lu bon mbaa nga wax lu yaree di ko mbaa lu tegginuwul xamal ni ah, ñu baree baree bare keroog génn nañ ci yow abadan te ñu nee lay déglu nag ñu nee lay seetaan xam nga télévision da ngay zappé rek ba yem ci dara xool bu la neexee bu amee yarak teggin nga continuer bu yaree di ko nga jéppi ka koy def jàll feneen loolu nag bari na ci sunu gars yi xam leen ni daal sénégalais yu yiw yi mënatuñoo déglu ñu bari ñu ne ci rajo yeeg télé yi déglootuñu leen mag du xëy di déglu mag mu réew magum jëm mu waroon di jàngale yarak teggin gën a xamadi ci réew mi kooku ñi am fulla duñu la déglu ils n'ont pas besoin d'entendre de des des insolents la te yooyu kenn mayu leen ko dudul euh, euh, faiblesse yenn yenn organes parce que Sénégal ku fi wax yenn wax yi war nañ la arrêté man su ma wallaay bu ma yoroon CNRA léegi wax ji rafet mbaa ma mbaa ma tëj sa micro yow pour lan nga ne ci réew mi lu la neex wax ah, dem ba defee ni télévision bi ngay feeñ day dara loolu dim nattu bu la yàlla teg sax télévision nekk ci télévision daa tax nga gën nit ñi yow nga gën a mën a gën a war a yaru gën a sant sa borom mi la may boo xamee lu baax xëy di ko wax ñu bari di ko déglu loolu xam nga ne ku ko yàlla defal boo reewee xamoo yàlla xamoo lim la defal yow yàlla may la ngay xëy di wax lu baax fukki nit di ko dégg rek doy na sëkk sant ko waxumaak ak ay millions nit di la xool ngay wax lu ñaaw lu yaree di ko lu xamadi ci réew mi ñu ñu naan senegal CNRA bàyyi leen ngeen di continuer ko am na ñoo xam ne dinañ wax ba taal réew mi te yéen a leen di seetaan yéen yéen a leen seetaan parce que dof dañ ko naan freineel arrêteel le fuut dof bu dajul du dëpp de moo gunóor gunóoreem ab dof dañ koy freiner waaye nii nu bëg a bàyyee sunu réew mi lu neex waay def lu neex waay wax fi hmm? koo xam ne defe na ni tele bi muy feeñ ak rajo bi defe na ni léegi moom daa saxi laaf boo saxee laaf nga naaw luy génn rajo génn télévision ah man ku ma woo ma wuyu la man kay bu ma woo guddi rek waaw ndax man saa dox bépp ba bëccëg la waaw bu jant soo moom tëdd naa wax dëgg yàlla waaye fu ma waay woowee bu may wuyu sax du ma xam ku may woo yàlla xam na ko parce que ñi may woo ñoo ma gën fuuf ñoom ñoo lijjanti ba am sama numéro li jot di di seetaan li ngay def di la ci ñaanal kooku bu la woote mënulaa jot te yow yaay kan ak looy def man bu ma paree fii sama émission damay taxawaalu ji rek waaw bu ma woo lu mu ëttee wuyu parce que télé laa ne wala rajo loolu mooy lan yow yaa joxe sa numéro kay bu bu fekkee doo wuyu bul joxe sa numéro mais di jaay naan man je suis toujours nangam daara <laughs> daara da leen wuyu nit ñi da leen wuyu ñi leen di woo te ñoo ñoo leen gën fuuf. te te wolof daf ni ku la woo jox la baa mu wax la te yàpp yëpp a baax bu dee lam lay jox lu baax la mbaa lay wax lu baax la te ñu si ëpp lu baax lañ lay wax moom la ñu lay jox ñenn ñi dañ lay ñaanal bëgg la dina seetaan fi ne ñu nga toog seen kër sa xam nga sëñ Mourtala moom mu nekk Touba Mourtala loo defe naa la maa ngi koy nuyu gëj naa ko dégg naan ma eh, maanaam dama koy tooñ ndax munul génn këram te sama émission jeexul kooku nag bu la woo mun laa jot yow yaay yow yaay kan ba defee ne organe bi nga ne dafa tax nga ngay ëpp nit da dara boo bàyyee télé bi yaari weer ñu fàtte la ñaari weer ñu fàtte la am na ñu ñu fi sii woon loolu ay jamono daan ñëpp di leen tudd kenn tuddatu leen parce que réer nañu réer nañu ñenn ñi fa ñu ne woon jóge nañ fa waaw ah, fa ñu nekk léegi amatul euh, gisatuñu leen nga xam ni kon star bi c'est la télévision c'est la télévision waaw nañu jéem a assainir sunu sunu presse bi waaye fi mu ne nii feebar bi di nga ci dégg lu ne ñu bind ko wax ko ci te ña koy wax nag Sénégal doo gis ko wax lu mu xam da fekk loo xamul dara da ngay fekk tailleur daal bu xam nga ciseau moom mooy dagg euh, euh, piis <laughs> mooy mooy mooy mooy dagg biir booy opéré léegi nag tailleur yay opeere tailleur yi <laughs> ñoo waroon a dagg tiis yi ñooy dagg biiri jàmbur yi di leen rey dañuy fekk sagaru nit bu tikkiwul dara ñu jox koy micro muy def lu ko neex ci réew mi loolu nag dëgg-dëgg c'est pas le Sénégal ñun xamuñu loolu fii ku fiy jaay jaay fi bi yarak ak i ku fi am looy nëbb nëbbal sax yaree di kook sax xamadi ndax boo ko nëbbutit da ngay mujj ñu muulu la ba nga faatu man maa la ko wax réew mii du réew mu nuy waxee lu bon boo yoree sa lu bon nga denc ko waaw la El Hadj Bekkaay Mbay doon wax ba laaj ba Bekkaay li nga wax noonu ni ma ni ma la ci sante keroog bi nga ma nee am na ñooñ danoo war a cotiser jox leen ñu noppi am na ñooñ nag dañoo war a cotiser jox leen ñu wax te lii lépp li ko def moo di réew mi nag am na benn affaire bu fi am boo xam ne il faut que waa Sénégal yépp maa ngi leen ciy woo di leen ko ñaan réew mi dafa am ñu baax lool ñoo xam ni fii lañ juddoo fii lañ jànge fii lañ yaroo fii lañ liggéeyee def fi parcours de A à zéro faute xam lu baax lool am expérience mais jéppi gu nu jéppi rajo yi ndax am na koo xam ne am na microbe bu ca diw waxee buggu caa wax moom ndax jéppi gum ko jéppi mais yéen a ngi juum yéen a ngi juum parce que bu fekkoonte ne bu kenn ku bon waxee kenn ku baax wax lu baax ah kii nit di déglu dina xam ni kee la war a topp kii jër ta topp ndax am na golo yoo xëy jëruñoo déglu ndax golo lañu golo moom saa yu duggee cib tool yàqu kon nag mëtta dugal cib tool waaw ah, am na ñoo xam ne nag ay golo yu nekk ci micro yi lañu waaw ah, di def yëfi golo suba ak ngoon bëgg a yàq sunum réew ci làmmeñ waaw ah. Baye Xaali wax nga dëgg de Baye Xaali eh, maa ngi ziar bu baax alaaji sëriñ Seydi Aboubacar Taal ca Tamba ca ca Bambey imaamu imaamu rati bu Bambey maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax waaw moo moo nu fi joxoon ñaan googu maanaam ma joxaat leen ñaan gi sax ndax nee na boo jàngee Fatiha bu sell Fatiha sax yëpp a sell xam na xam naa jàngin wa moo moo tax ñu naa sel waaye Fatiha moom yëpp a sell nee na boo ci jàngee boo ko jàngee. da ngay def ñetti astaghfirullah def salaatul fatiha def ayatul kursiyu boo ñëwee ba ci euh, allahu la ilaha illa wala alqiyum la taxuso sinatun wala nawmun lahu ma fi samawati ma fi lardi man sallazi yasfahu indahu ila bisni yàllahu ma bayna aydihim wa ma xalfahum wala yuhituuna bi cheyin min hilmi ila bi ma shaa wasian kursiyu samawati wal arda wala yaudduhu wala yaudduhu ifsuuma wa huwa al ali al azim nga def ko soixante-dix fois juróom-ñaar fukki yoon nga jàng laqad jaakum rasulun min anfusikum xasisun alayhi ma annitum harisun alaykum bil muminina raufun rahimun fa in tawalaw fa qul hasbiya laahu laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim waaye nag nee na nee na juróom-ñaari yoon nga koy jàng waaye boo koy jàng da ngay dëpp say loxo da dëpp say loxo soo noppee nga def salaatul fatiha ñaan yàlla mu faxasal nu mbas mii nga xam ni moo jóge Chine dugg ci réew yu bari nag ni sibbiru si dugge fépp nag waaw yàlla na ko yàlla yemale fa mu yem yàlla musal ci jullit yépp yàlla musal ci àdduna bi yépp yàlla dàq ko mu dem te nu suppi suñuy jikko nag suñu bëggee feebar yi du dugg si waaye ñu mel xaj ay xaj fu ñu bari feebar dugg fa de rage ah tam na ñoo xam ni kat ay nit lañu waaye li xaj di def lañuy def ci réew wax dëgg yàlla loolu lu am la ndax ku koo xam ni yàlla may na la man dama dama des fois dama naan sax kii xanaa xamul parce que bu fekkente ni da nga yore rajo wala nga yore télé di wax àdduna bépp di la dégg xamal ni mën ngaa wax ba wax lool mën na la yóbbu àjjana ci rafet gu mu rafet ak ci dëpp gu mu doomu aadama xam ngeen suñu suñu émission démb bi actuellement tax na ay millions yi sénégalais kenn ku ci nekk dellu nga sa dëkk wallaahi dellu nga sa dëkk Euh, reprendre nga say relation ak say bokk sa dëkk ba nga bawoon 30 ans demaat nga ñenn ñi ñaani nañu parcelle ñenn ñi yàgg nañu dafa nekk loo xamante ni loolu defe naa ni mooy liggéey bi fexe bay defar bañ a bokk ci ñiy yàq ka tiitle ndax sénégalais bi nekk bitim réew kat am na fen yooyu boo ko dee fen ci réew mi moom tegu ci bët danaan dëgg la te fekk lépp ay kàcc la lépp ay kàcc la fii ñi fi ñi fiy wax ñi fi ñi fiy wax lu ñu xamut ah bari nañu lool xamuñu ci dara wax rek parce que wax léegi nag dafa mel ni mooy liggéey bi te man damaa yaakaaroon ni la Bob Marley doon wax moo moo loolooy dëgg actions speak louder than words les actions sont plus parlantes que les les paroles xam nga paroles yi kese man mosumaa gis ku ci defar ngunul ginaar waaw ah, da ngay liggéey da ngay jëf di wax wax ju rafet bu wax jotee nga wax bu wax jotut nga noppi wala am na ñooñ danoo waroon a cotiser wax dëgg yàlla fay leen rek nu baal nu fi sunu micro yi nu baal nu fi sunu micro yi waaw ndax léegi mënatoo am menn mag mu baax invité ko ba mu ni la dinaa ñëw ndax yéen eh, léeg-léeg sax kenn ni la yéen kat da ngeen damaa dégg diw di ngeen invité woon diw ah mais kooku lu ngeen ci invité te kat waaja bu génnee dañ naan kilifa laak parce que Sénégal nag dafa mel ni presse bi sax ñoom kuy wax luy yàq réew mi la ñuy wër dafa mel ni sax wëruñu Sénégal yu xam lu baax ah di ko wax déedéet ñooñu parce que ñoom dañoo bëgg saa yu nit waxee rek mu créer benn polémique xam naa pour ñu xëy bind ca wala ñu yokkaat wax ja wu na créez que des polémiques mais vous ne donnez pas de, solution au Sénégal xam nga émission boo éviter nit kay da nga ko war a laaj loo xam ne bu ko waxee sax Sénégal am ay solution ci certains de nos problèmes mais koo xam ne bu waxee dañuy gën a yokki problème yéen ñooñu ñooñu ngeen di wër la presse la ah elle est elle est trop de brebis galeuses y a trop de brebis galeuses dans cette presse parce que lépp a ngi ci biir ay dealers ay maîtres chanteurs ay ay ay ay porteurs de combat d'autres il y a tout dans cette presse c'est vraiment c'est de la pour pourriture maintenant je m'excuse nag maa ngi ci biir mais doxatut de doxut de wax dëgg yàlla doxatut sun presse bi moom bu dee nii lay doxee léegi sénégalais yi euh, seeti yeneen télé wala yeneen rajo di ko déglu waaw man mii maa ca jiitu parce que man am na yëfi dof yooyu du ma ko xoola ah. je ne les les écoute pas man lépp lu ma jariñul du ma ko déglu lu ma jariñul duma ko déglu duma ko xool waaw am na loo xam ne mënoo toog sa njaboot di ko déglu magum jëm moo xëy am na jabar ami doom di wax wax ju ñàkk kersa rek dëkke ko tangal ñu gor yi ay yooyu yéen nag wax dëgg yàlla réew mi teg leen ko ci yoon xanaa nag euh, sunu or sunu service yi toppatoo yooyu ah wax dëgg yàlla war naa mën a defar réew mi ku teguwul ci wu yoon di wax lu la neex ñu ñu faree ne la nag mais nii ngeen ko bàyyi waaja de dina mujj dem bay mbéj nit ñi sax de parce que il se croit tout permis maintenant et ils sont nombreux ñu bari lañu ci ci bi ay dealer man dama koo xam nag parce que ne woon ci rajo laa jëkke fa laa xamee fa laa xamee sax gars yi ni ñuy diile ak ñi ñuy invité ni ñuy def ak ñoom waaw waaw <coughs> am na ñoo xam dañ leen di invité ci organes yëpp parce que dañuy joxe ah dañuy joxe dañuy joxe te xam naa ci dara moo tax man xam naa boo moytul du ma gaaw a bari xaalis ndax boo bëggee xasu xas nit ci sama émission bu dee man a doo toog fi man fii ku mënta wax luy defar réew mi boo doon joxee sept cent milliards it du ma jël lu ma koy doyee sax boobu xaalis lu ma koy doyee yow yàlla may la teraanga nga am dépense am kër am soxna amul njaboot looy jaayee sa bopp ndax ay miet enveloppe yu tuuti benn waaye ñëw toog ci sa émission wax lu taal réew mi nga nga ba mu dem yooyoo yooyoo fi ne nag xaw ma nag lu te yu ci bari nag daa koo xam yu ci bari dama caa jaarit ndax man directeur bi ki njëkk nekk sama directeur u rajo mooy Michel Diouf mooy l'actuel directeur euh, bu rajo Sénégal international un monsieur comme ça ku jub koo xam ne duggul ci ay deal il n'est pas maître chanteur wala un journaliste professionnel kooku liggéeyam rek lay def kooku bokkul ci gars yi walaay jaayul boppam dama ko daan wax sax naan ko Michel yow boo moytul di nga yeex doon directeur parce que da ngaa jub yi dafa mel ni ku dëng lan bëgg waaw ah, ñu dëng ñooñu te xam nañ leen ah, on se connaît entre nous <laughs> am na yu bari yoo xam ne léeg-léeg nga daje <laughs> ay nit ñu net li la sax benn benn waay boo xam ne day wax a wax ba nit ñi defee ne am na wala te ndeke moo moo c'est un corrompu c'est un corrompu li mu lay wax ak ni mel c'est très différent gaa yi noobal yombul de xëy Europe dépense nga romb 1000 francs ba ko fa <laughs> ñi ko man bari de. for cent mille francs woo ki ko moom ni ko am sëñ bi da lii ci yow la rote te buñ ko bi nga ko koy jox cinq cent newul ci sa poos wallahi wallahi bi nga ko koy jox téeméer newul ci sa poos ndeysaan maa ngi fàttali ko benn paa ca Pekes daa xëy di jëndi dugub Pekes booba ay mbuusi saako yooyu ci ngay def sa xaalis mu fayut impôt dëkk baak li muy commerce ak lépp def ko ci mbuus mi teg ko ci benn banc di tëj magasin bi fàtte ko fa may entrainement ci fajar gi romb ko fa for ko dem def ko ci sama suufug lal pour déglu boobu maa ngi jàng primaire yàlla xam na ko <laughs> bi nu génnee récréation ma dem ca dëkk ba fi ma ko fore ma fekk paa bi taxaw ñëpp wër ko mu naan man kay dee naa ndax impôt dëkk ba sax ci laa ak li ma doon jënd ji dugub eh, ci li ma xaak lépp mi ngi ci bisub altine la ma woo ko ba ñu taxaw nee ma ne ko eh, eh, kaay ñu dem mu topp ma bañ demee sama kër paa bi bi ma ko joxee affaire bi may san <laughs> daanaka damaa mbëkk parce que yaakaarul woon ni dina jotaat xaalis bi yaakaaru ko woon te boobu pourtant j'étais enfant xale bu ndaw maa ngi am ay quatorze ans quinze ans dama ko koo for delloo ko ko parce que sama yaay daf ma daan gëmloo ni ma saa yoo foree lekk ko loo yorati mu réer te bi ma ko bi may delloo paa bi xaalis bi defe naa euh, mille francs la ma ca may mais mille francs <coughs> mille francs ya nam barkeele ay cuuj laa ca jënd cuuji ginaar ginaar yi di jur ay fukki doom ak juróom benn <coughs> fukki doom ak juróom benn la ñuy jur waaw ndax barkeel gu mu barkeel ma daan ci jënd ay yére di ci jënd ay fourniture ay gars ku ñu for léegi sab xaalis am na ñoon sax duñ ko laajte buñ ko buñ ko buñ ko foree ak seen xaalis seeni i sax seeni i pièces la ñuy laajte parce que boo nee xaalis nga ca boo moytuwul sax du feeñ te pourquoi nit ñi yow boo goree de jàppal ni yaa goree di mais bul def beneen nii ñëpp ni yow lañ mel de ñëpp meluñu ni yow de yow yoral sax ngoree di rek mais ñi gore ñoom baleen ñoom dara mun leen a tax a goree di parce que as gor as gor lay doon as xam nga as gin koy wax xam nga koo ni as nit nga mu mu mer koo ni as tànk nga yor mu mer koo ni as mbopp nga yor mu mer mais mais koo ni as gor nga du mer xam ngeen lu ko war a parce que gor yombut moo tax baat bi jafe hmm. ba moo tax baat bi jafe de ñu naa la as ndax am na ñooñ amuñu ca tus dara amuñu ko ci ngor koo gis muy jaay boppam ak di dugg ci diil ak di di yàq deri nit ñeeg nit naa la yàqal ma derum nit ak nga ne ci presse bi defoo liggéeyewoo ci dara lu dul ay chantage ay diil ay combine ay clan ay yooyu mooy lan ngeen defee ni ñi ngeen ñi leen di déglu yéen a leen gën a muus noo leen ëpp xam-xam fuuf réew mi ñi fi jàngut ñoo gën ñoo ñoo gën a yeewu am na koo xëy duggul école demul dara de mën na laa jaay <laughs> mën na laa jaay demal fii ci pàkku làmbaay nga fekk ba sama mbokki bawal bawal yi yor saw jàngu tubaab arab nga ñëw ni danga leen di nax bu soobee yàlla booy dem doo doo sol say daal parce que da ñoo la ab yar bi nu am moo tax yar bi nu am bi ñu leen yar moo tax ñu yeewu waaw xam nga reewande moom bu nee ci yow ak xamadi ak naafeq ak njublang nooy baaxe kooku daa mën a baaxal dara ba pare ñu jël leen nag jox leen i micro jox leen i micro ñu dem ba defe ni ñoom léegi pouvoir la ñu yor dem ba defe ni ñoom moom réew mi dem ba defee ne lu leen neex war nañ ko fee mën a wax mais fan lañ ko teg CNRA di xool koi des fois ngay déglu fii yoo xam ne yow da nga tu es nga déplacer rajo sa rajo parce que nit ku ñu yar mënul déglu mag mu réew muy wax lu ko neex yooyu nañ ko bàyyi waaye nañ bàyyi yooyu nañ bàyyi yooyu réew mi moom wax dëgg yàlla boo fi bëggee daal nit ñi di la déglu sax di la ñaanal moo moo gën ñu di la déglu di la móolu te am na ñooñ fii dañ leen di móolu dañ leen di móolu parce que li ñuy wax rafetut baaxut amul kersa amul yar amul teggin am na ñoo xam ne duñ leen déglu duñ leen déglu ah, parce que nag xëy na ku nekk ak la la dugal ca presse parce que nag motivation yi ñoo dul benn xam nga am na kook dafa créer organe de presse pour participer ci développement réew mi jël xale yi ñii caméraman lañu ñii technicien muy leen di fay salaire ñuy liggéey mu participer ci développement bi ak participer ci création d'emploi au Sénégal ñooñu ils ont du mérite mais am na ko créé wu ko pour loolu daf ko créé pour wut un petit pouvoir fu roq bu muy amee dara <laughs> yooyu yëpp gars yi xàmmee nañ leen de am na ko li ko dugal ci métier mi mooy daf ko bëgg ba muy xaleel dafa masoon a gis peut-être journaliste bu meloon ni ñoom Ablaye Fofana ñoom Alou ñoom euh, euh, ñoom euh, Mata Sila ah ñoom journalistes yu mag yooyu ñoom Amadou Mbaye Loum ndeysaan notre spécialiste de l'armée ndeysaan daan liggéey ñoom Waaja Sané te nekkoon directeur bu bu RTS Babacar Sané je crois Mohamed Baba Babacar Sané ma dama fàtte tur ba mais ñu wax dëgg yàlla dañu ay professionnels la woon Babacar Diagne mi. waaw ak Omar Seck Omar Seck ah ñooñu ak Elisabeth Ndiaye ñoom ñoom soxna euh, Dieng ñoo ñooñu dëgg-dëgg def nañ presse ba bàyyi presse mosoo dégg dara lu ñaaw jóge ci seen làmmiñ lu ñu mas di wax euh, euh, sëriñ ba mën na koo déglu fonctionnaire ba mën na koo déglu parce que dañ ko doon teg ci xam-xam teg ko ci yar teg ko ci éthique te booba Léopold Sédar Senghor mi fi nekk ah booba am na yoo xam ne kenn ñemewu ko ci réew mi parce que sengoor nag on peut tout lui reprocher sauf euh, bàyyi nit ñi ñuy def li leen neex non non non Senghor ne tolérait pas l'anarchie il ne tolérait pas polites waaw il ne tolérait pas l'indiscipline waaw mais léegi moom gis nga ko dafa mel ni daal dañu ni état bi amul moyen yar nit ñi loolu nag fu mu am ah day mujj peuple bi ñu ci baree bare ay mala la ñuy nuru parce que nit buy abusé wu nga bàyyi ko ci day mujj ba dem ba defe ni li muy def c'est légal xam nga yu baree bare nga am ci réew mi bàyyi gin koy bàyyi dong nga tax ñi ci ñi ci nekk continuer parce que pour ñoom garaawatut ah da nga daan dem ci bureau di wutu kayit ñun la indi dara eh, nga joxe ko joxin wu xaw a suturlu léegi da nga koy joxe ñëpp di xool parce que corruption boobu ñu bàyyi muy dem moo tax léegi waa ji pour moom garaawatu la ah. c'est devenu légal entre guillemets parce que looy def di dem ba kenn terewuloo ko amul benn conséquence dara dalu la ci danga nga naan c'est am na ñooñ seen dépense su kër ci corruption lañ koy jëlee saa yu xëyee di ñu di leen corrompre ba jant so ñu dem jëndu yàpp yóbbu seen kër suuxate ko seenu njaboot bu ko defee doom yu jigéen dooni cagat doom yu góor yi dooni ay agresseur parce que li ñu leen suuxate posen la posen la wallahi képp kuy jox xaalisu corruption sa waa kër ñu koy añee ka reeree ke di nga jur caga ju bari di nga jur agresseur yu bari maa la man taal te lu ma teg bët la nag am na yoo xam ne nan ko bàyyi waay nan ko bàyyi waaw amul njariñ nan seet li baax ñu di ko def li bon ñu ba ko am réew ku fa nekk dangay xam ni réew ma dafa am lu la ca war loo xam ni moo la ca war nga war caa nekk bañ a nekk ci loo lu la neex nga def loolu teguwul fenn waaw lu la neex nga def waaye nag ñi leen di bàyyi ngeen def lu leen neex ñooñu ñooy ñooy responsable yi waaw ñooñu ñooy responsable yi wallaahi ñooñu ñooy responsable yi en tout cas ni ma gisee daal Afrique di ko doxe war na noo seetaat bu baax suñu bopp war na noo seetaat bu baax a baax a baax suñu bopp am na loo xam ni nit du ko def nit du ko def nit ku normal du ko def waaw nit ku normal du ko def nit day am yar ami teggin waaw loolu mooy li baax waaw di wax lu baax boo xëyee xalaat lan lañu war a wax ci réew mi lu koy defar comme ni ma déggee léeg-léeg Alaaji Assane géey di ko waxee alaaji Assane Gueye ah mook Abba saa yu ñu xëyee ba seen jataay su gàtt soosu bu ma ciy déglu alaaji Assane Gueye day mel ni maa ko yónni ni ko waxal ma lii li ngay wax lépp Gueye da lépp mënees na koo dégg sëriñ saa ngi koy déglu nit ñu baax ñaa ngi lay déglu ñu ngi lay ñaanal it di ci teg moom alaaji Assane Gueye bu RFM ah woy kooku moom waxul dara luy taal réew mi waxul dara luy yàq réew mi yàlla na yàlla taxawu la te téye la parce que yow dëgg-dëgg ku bëgg Sénégal nga ku bëgg Sénégal da ngay wax lu koy defar da wax lu koy defar te boole ca yar ak teggin nag waaye nag xam naa fi nga dëkk la kajoor boo fa kuñ fa yar nga yaru ku ñu fa yar nga yaru wallaay maa la ko wax waaw nga sant géey teg ci parce que ñooñu nag ci ci famille yu mag yi ci Sénégal ci lañu bokk de muy géey muy mbeng muy sàmb waaw muy faal muy juuf wallahi am na ñoo xam ni <laughs> ndono la lu baax rek ngay mën a xam doo mën a xam dara lu ñaaw ci réew mi di ko wax wallahi wax nga dëgg Alaaji Assane ñoo lay ñaanal bu baax a baax a baax man day je suis très content de Alaaji Assane parce que nit day wax lu baax boo ko mënut nga noppi wallaahi boo ko mënut nga noppi waaye wax loo xam ne koo dégg tiit wax loo xam ne koo dégg ni kii fu mu dëkk kii mooy kan kii lu mu bëgg ci sunu réew mi hmm? di jaay naan xam nga dara ak da bëgg réew mi te yàq réew mi ci ngay xëy ci ngay gont yàq réew mi képp ci ngay xëy ci ngay gont boo defee ne waa réew mi nawloo nañ la xamoo sa bopp ki may wax xam na boppam wala ñi may wax xam nañu seen bopp waaw xam nañu seen bopp waaye télé bee leen dofloo parce que rajo ak day dofloo nit da ngay dem ba defee ni yow léegi sur nit nga loo doon star bi mooy télé bi de bu mu defee bu ngeen bu leen yaakaar ni euh, génn tele bi tax na da ngeen a ëpp nit ñi de ay nit kese ngeen waaw dangeen di añaka reer di nelaw ak a fàtte di gént di xaran lu ne ngeen di def yéen nit ñee tele bi taxut ngeen gën kenn taxul ngeen di daaraa du ngeen star borom télé bi fii alaaj Ndiaye star bi alaaj njaay mooy star bi de waaw parce que moo def lu loo xam ne moo staré moo staré waaw di ñafe jóge ca àll ba di ñafe ba taxawal lu tool ni 2S ñaata nit ñoo fi dugg di fi daan seen doole yàlla di leen fi jox seen wërsëg kooku kay moo kooku kay mooy mooy star vrai bi mais yow nga jóge ca gajj ba fee bi ngay ñëw fi menn mbubb nga fi indaale télé bi di la defar ba nga yor wëlis yor armoire bu fees del nga defee ne nag léegi yaa ëpp Alaaji Njaay <laughs> gars yi ne rêvez pas waay revenez ne leen cëpp waaw ne leen cëpp te xam ni nit kese ngeen participer nag ci luy defar réew mi luy tabax réew mi luy luy def lu baax ci réew mi luy may nit ñi jom ak ngor ak ngar mi yooyoo mat a xeexi mais maa fi gën a ñaawu làmmeñ yàlla nu yàlla musal ci yéen kon nag xam naa nu yem fii rek insha allahu ba suba ñu dellu si ci alarba ji nga xam ne waaye nag ah, maa ngi jaal bu baax sëriñ Dame Guèye ah, di nekkoon ah, ku yore woon daara ju mag ca ndar maa ngi koy jaal bu baax di ko jaal Ibrahima Seck suma suma ba bu nekk Saint-Louis e, di ñaan yal na yàlla woyofal suuf ci kawam di ziar waa ndar gépp di ziar waa kër góor gi Maajoor Cissé maa ngi nuyu sëriñ ba bu baax a baax a baax namm naa leen di ñaanal suma xarit aussi te di ko ziar Abdul Xaadir Diak imam ca Saint-Louis dongo dongo boobu nga xam ni mooy xaal pulaar yi jóge woon fuuta jàng si ci daaray kokki jooju nga xam ni góor gi Ahmed Saxiir Lo mu baax ma moo moo moo moo moo fa nekkoon e, di ziar bu baaxit suñu xarit as ndaw di ko ñaanal yal na yàlla dolli xéewalam e, ci nii nga xamante ni noonu lay investir ci alquran ndax kenn ku nekk ak la la yàlla xiir moom lu mu am yóot na ko daara ya yal na yàlla gën a yokk wërsëg bi kon nag ñu yem foofu rek ba suba euh, di nuyu bu baaxit suñu xarit Thierno Correa ci Abidjan di ko ñaanal yal na yàlla defar mbiram yépp ak euh, may sa géey ndéem couture kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jërë ngeen jëf